tali jàmm ñoo ànd xëy yër ñu xëyantoo yéenekaay gi di réew mi di jen xëy di ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko njiitul Pastef mi nga xam ne dafa feebar ba tëdd ci lalu na di wax ak askanu Sénégal ñu takkal koy pervision journal bi nee na mu sant ñi nga xam ne ñooy ay farandooma maanaam combat bi ñu laa di koy wéyal xeex bi ndax nee na xeex si booba te xeex bi léegi tey mu jeex léegi tey Macky Sall abal ñoo loole la Ousmane Sonko wax ay farandooma nee na xeex bi maanaam nañu ko xeex ba su jëppandaw ga ndax li nga xam ne moo si des bëriwu ne moom la leen yóbbu ca kaso ba loole maanaam bu mu leen tiitala bu mu leen rafloo bu leen tiit benn yoona bu leen yox-yoxee nañu jàmmarloo ak Macky Sall ndax jamono ji maanaam amuñu droit amuñu sañ-sañ di deltu ginnaaw ci li nga xam ne mooy xeex bi ndax xeex nañ ko ba mu toll fii te mbir mi boo ko xeexee ba mu toll fii da nga ko war a yeggale moom Ousmane Sonko niki démb daan wax yeneen xeex yoo xam ne fas yéene na ko lal ci réew mi maanaam lu demee ni ay grève générale maanaam ci secteur a Sénégal moo leen yitteel ñu daal di li nga xam ne mooy xeex bi jàmmarloo ak Macky Sall yéen kaay gi di Vox Populi moom Ousmane Sonko a ko a daat nay wax ci li nga xam ne mooy jëm ci bëccëgub kerom ba ak li ñu ko gaasee li ñu ko pompe daat nay wax ne jël nañu ko yóbbu nañu ko bitim réew ngir nag def ci ay xool ba xam lan la yéen kaay gi du l'Observateur moom Ousmane Ousmane Sonko daat nay wax ni jamono ji ñun ay li nga xam ne moo am ba de sala wuru ñoo a xeex yéen kaay gi de la témoin xëy duñu xibaar na ni ki démb bi ñoo naa tàng na di Rewmi Quotidien am na ci benn élève boo xam ne démb la ko faat ca diwaanu bi ñu naa journal bi di la témoin xëy na ñoo xam ne am nañu fa ay gaañu-gaañu école yu bare bari yoo xam ne jànguñoo yéen kaay gi di L'Observateur nee ki ñu fàtte diwaanu bi ñu naa moom Modou Kor Kabalu tudd yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na siège APR bi nga xam ne moo nekk sa sigi coora dañu koo taal yéen kaay gi de la quotidien nee na bëri na ay coordonnateur passif yoo xam ne jamono ji teg nañu leen loxo ndax coordonnateur bu passif bu passif ca diwaanu Kër Massar jàpp nañu ko yéen kaay gi de la peuple nee na lu jëm ci jàpp gi nga xam ne ñoo koy jàpp farando yu Ousmane yi mbir mi jamono ji ma ngi melul tulleeg màlle mbir mi neexul situation Sénégal ci àq ak yelleefu askan wi département d'état américain ak Human Rights Watch ñoom nag def nañu ab rapport boo xam ne doy na waar lool rapport boobee nag li nga xam ne moom la wane wone maanaam Sénégal wàccoo wuñu ak li nga xam ne mooy àq ak yelleefu doomu adama maanaam lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama rapport boobee wane na ne dañu koo salfaañee ci Sénégal yéen a kaay di critique nee na yëmul rek ci àq ak yelleefu doomu aadama waaye département état américain ñoom nag wane nañu ne lu jëm ci wàllum ger gi ak wàllum impunité jamono ji law na lool ci Sénégal yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall nee am na sañ-sañ présenté wu ci élection présidentielle 2024 nee bu Sénégal moo ko wax na ko sa bu njëkk ba bokku ci yéen kaay gi nee wax waxeet jamono ji ci wax boobee opinion la joxe woon te loolee la gëmoon waaye nag situation bi mën naa soppar ñu ko moom président Macky Sall nee ci politique la nekk loolee na ko gars yi xam te nag amul kenn ku nekk naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall bu ko sax candidat la ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la Mouhamadou Moustapha Diagne Macky 2012 nee na Macky Sall jamono ji ñi nga xam ne ñoo ko war a ay mercenaire lañu ak i activiste yéen i kaay gi di Walf Fadjri ci wàllum ñetteelu mandat bi jamono ji gis nañu ne Macky Sall maa waxoon waxeet moom la bëgg a def département d'état américain ñoom nag nee nañu Macky Sall jamono ji ma nga ci ne diggante Macky Sall ak Emmanuel Macron mën naa yàqu yéen a kaay gi de Le Quotidien moom jiitu réew mi di président Macky Sall daan nay wax ne Sénégal bu nekkatoon réewu démocratie nëga ni Ousmane Sonko lijjanti nañu ay mbiram bu yàgg-yàgg yéen a kaay gi di enquête nee na lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi professeur Aliou Fall moom na daan nay wax ne conseil constitutionnel 2016 amul kenn ko xam ne laajoon na leen ci lu jëm ci wàllum nombre de mandat yéen a kaay gi de Les Échos nee na njiitu réew mi di ngi jege lool ci lu jëm ci ñetteelu candidature yéen a kaay gi di bëgg troisième mandat ñoom nag nee nañu Macky Sall jamono ji waxam ji waxi ku bëgg a sampan dëndëm la waaye nag na ci deltu ginnaawa balay béy di way mbuusa yéen kaay gi di Direct News xëy dañu xibaar naan ñu Macky Sall ñi nga ñoo ko daal di sëkkatal ngir nag mu sampan dëndëm waaye nag jamono ji mën nañoo wax ne lépp leer na ci lu jëm ci wàllum candidature Macky Sall ci élection présidentielle 2024 yéen kaay gi di bés bi Mamadou Mbotia bu jàmm gën troisième mandat nee na lu jëm ci wàllum jàmmarloo bi confrontation bi nañu ñi nga xam na ñooy waa CUSEMS ñoom nag nee nañu danañu amal ñaari fani grève ndax ñi ñu jàpp si ñoom dafa bëri lool yéene kaay gi di laas xëy diñu xibaar naa ñu mbootaay gi nga xam ne moo ëmb syndicat yi yëngatu ci wàllum santé ñoom seex sekk ñoom nag nee nañu danañu amal ñaari fani grève yéene kaay gi di sunu làmb xëy ñu xibaar naan ñu combat Lac de Guiers numéro 2 ak Siteu combat boobee taxawal nañu ko